xam naa sëñ Assane bala nga depart rek ginnaaw bi nga xamee ne tey ànd nga ak Baye Fall yi nga xam yaa leen jiite ngeen ñëw def mobilisation bu am solo ñëw ci kër Serigne Touba gi taxaw fi liggéey bu am solo tey lan nga yëg agit li nga xam moo nekk suñu kanam liggéey bi des na loo ci sa mbokk Baye Fall yi. jërëjëf sëñ Gora ñoo ngi lay nuyu bu baax te di la ziare waa di wax nag kontaante rek ndax euh, lii moom mbégte mënu koo weesu. nekk ci dëkk di fa liggéeyal sëñ Tuubaa ba bés ñëw ngeen jënd fa kër sëñ Tuubaa fas yéene ko liggéey gis nga góor yàlla yi daanaka tubaab yi nga xam ne ñoom leen jëloon ngir ñu liggéey kër gi sax ñoo leen gën a sonn waaw ndax ñoo doon gas-gas yi gis nga pikk yeeg yooyu yëpp góor yàlla yi di jaayante mbir mi moom noonu la rek li ma wax sànq rek ma ne liggéeyub sëñ tubaa du ma ne nag euh, ci Argentine ñoo ko njëkkee waaye ñoo ko mujjee dama ne ndax réew yi nga gis yëpp ci àdduna bi am nañ kër sëñ waaye ñun ñi ngi door a am kër sëñ tubaa kon liggéey bi ci ñun la des liggéey bi sëñ Touba fi mu toll nii dëgg-dëgg liggéeyal sëñ Touba ci ñun la des. liggéey yi wax dëgg yàlla mbokk Baye Fall yi dañ ci am pàcc bu am solo foo dem ci àddina bi niñ ciy jiitoo loolu ban appel ngay def ci mbokk Baye Fall yi nga xam ñoo fi nekk. waaw Baye moom liñ ko xamee mooy liggéey rek. ndax si ab Lahad Mbacke mu baax ma da daan wax sëñ Modou Aminta ne ko ñaari mbañ moo am ci yoonu murit mbañ mi nga xam ne moom la waa kër sëñ di bañ mooy bañ a jox ndigal waa kër Cheikh Ibra waaye mbañu waa kër Cheikh Ibra it mooy sëñ jox leen ndigal te jëfewuñ ko ñun nag fu jëwrinu sëñ Tuubaa teew niñ koy waxee rek dootuñu doon dara ndax Cheikh Ibra amutoon mënutoon xamutoon yorutoon lu dul Cheikh Ahmadou Bamba Xaadim Rasul maa ngi ciy soññ mbokki góor yàlla yëpp képp ku di Baay Faal rek ci réew mi bu ñuy liggéel sëñ tubaab buñ gëstoo nañu la gis te xam ne Baay Faal moom xitma rek lañ ko xamee. waaw kooku nag boo ma ko làkkoon ci anglais mooy mooy gën a neex you speak English